président woo leen banquier ne leen ku jël ku fa am R plus nañ la jox 20 millions ak terrain ku fa tabax rez-de-chaussée nañ la jox 10 millions ak terrain bu ñu wootee ñu dem impôt domaine ñu ne kaay leen jël seen kayitu seen kayitu kër yi ma quitté Ziguinchor ñëw bi ma ñëwee ñu dem impôt fekk fa ay xale yi 17 ans 18 ans ay femmes yoo xamante ne kenn mosu leen xam ci Tobago bi ñu nekk fa ñu dañoo jël si kayitu kër ko si jégee boo ko laajee loo fi def mu ne ah man dañ ma woo rek ñu ne naa ñëw jël kayitu kër bon ma ma toog di xaar bu muñ paree je me suis approché de mbay coy ma ko mbay ah mbiri mu ne non ah, bi premier liste bi la na ngeen xaar deuxième liste bu war a génn ma ne ko ah bon après bu ñu ay enquête ci suuf ñu xam ni amul deuxième liste c' est faux boo ba léegi nag ñuy daw ci ginnaaw affaire ñun commission bu ñu formé ñu wóolu leen dënk leen au lieu que ñu yóbbu pat euh, liste boobu liste bi nga xamante ne liste bu njëkk bi bu ñëpp kii

mu ne lor mais momit delusi na mu ne ah man tam lor len dama yermande bi de dama ko wara dawal ci yeen ngir sama kan. deful dara le de deful dara jatura njay eh, eh, bu abdoulaye jone deful dara ñom ño def seen njublang njublang bobu nak lañuy ñaan le président te nit ñi ñu bëri dañoo leb ci banque yi ñi ñu ngi amee ay bor ci affaire Tobago bi te affaire yi métti na lool ñu koy ñaan yàlla ngir yàlla ak yonent bi mu jublu ci dossier bi pour lijjante ko mu gën a leer ku ci nekk ku ci amoon ñu mun la delloo li nga am jàmm na ñooy jërëjëf